jërëjëf mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV Serigne Moustapha Dramé yàlla kese gëj ngeen ko gis toog nañ ay mois yu yàgg yàgg gisu leen ko mu feeñ am na ñenn ñu ne mi ngi ci kaso bi am na sax sëriñ bu taxawoon ne maanaatal Moustapha Dramé ngir mu génn dëkk bi mais jëmu ji ma gis est ce que nuru na ku ñu naatal danañ ci dugg ànd ci ay leeral Marème Faye sàll gis ngeen ñi taxaw di ko jéem a jiiñ lomotif wax joojee sëriñ Moussa Darame yàlla kese nee na ma tey dinaa la ci andil ay leeral danañ waxtaanee li nga xamante ni moom mooy procès Sonko ak Mame Mbaye Niang waaye procès Sonko ak aji Sarr le 16. ñaari jege yu ñu jegewante sëriñ Moussa Darame yàlla kese danañ dugg andi ci ay leeral mais mbokk yi gis nañ na jamono ji tàggawaate bi bëri na ci internet bi gis nañ ku affiché rek def rip waaye jël photo Gaston Mbengue taf ko ca ne Gaston teg ci li nga xamante ni moom mooy dee. danañ ci laaj sëriñ bi li xew senegal ak tàgg nit ni mu yombee mais laata loolu dañ koy bàyyi mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëñ Moustapha Dramé Yàlla kese ginnaaw ba nga toogee diir bi yàgg kenn déggu la na mi namoon nañ la lan moo waral tëju bi ginnaaw. allahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi diin iyyaka nahbudu wa iyyaka nastahiinu ihdina siraat almustaqima siraat alladina anamta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala dalin amin alhamdulillahi alladi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqi alhamdulillahi alladi hadana li haza wa ma kunna nahtadia an hadana allah rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati wa qina azaban nar rabbana innana samihna munadiya yunadi lil iman laaju dégg naa bu ñu sant yàlla julli ci yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu waa àdduna di nuyu waa alaaji dégg gëj nañoo gisee gëj nañoo déggee namoo naa tamit ñi nga xam ni ñoom ñoo ñoo jël seetaan improt ak fooy mën a nekk da ngeen safoo ci gëj a dégg gi gëj génn gëj gis gi. nga tëju rek Fatou ñii ne sëñ Moussa mi ngi xalwa ñii ne sëñ Moussa Dramé koo xabtal mu génn dëkk bi am na sax ñu ma ci wewu bay ñu ne sëñ Moussa ma nga ci kaso bi tey yan leeral ngay leeral askan wi la doon laaj te namoon la. waaw xam nga alaaji dégg sant yàlla. man maa ngi doog ko xam li gën a neex ci dund doomu adama mm-hmm. man ko doo ko dund ci deux mois yi mooy nga a tekk tekkaaral mm-hmm. ñi lay yéenee safaan wax mm-hmm. nga xàmmee leen ñi toog ci arab arab arab toroxtaan di leen ñi nekk buntu ba di la xaar nga xàmmee leen ak ñi la yéenee nga nga tedd dem àjjana mbokk yi wala nabluwannakum bi say im min al wal juux wa naqasim min al amwali wal anfus wa samar ba sabirina alladina ida asabaru musiba xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla dafa ne juróomi mbir ngi ne yoo xam ne dinaa mu giñ ne wa wala nag wan na ko waaw googu ci naw giñ la maam mel ni yow nga bëgg nga ne giñ naa ne dinaa def nangam mu ne wa la nag wan na giñ naa ne dinaa nattoo ay mbir uhuh. lim feebar ci la bokk. ñàkk ci la bokk. nattu la ki sa jege ñaar lu mel ni doom yooyu ci la bokk. yooyu yëpp nag dem kaso man nga ko cee boole. toroxtaan yëpp mën na ci am. mu jigéen mu ne sax yooyu lu muy gën a garaaw garaaw est-ce que xam ngeen ne am na bu des. mooy mën naa ci boole loo xam ne bu amee. ñëpp lu wax ne mu ngi mel ni nga ne allazina iza asabat musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu ne ba ci xattaa sax. mën naa jël sa bakkan sax. Mm. ba ñëpp wax xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. kenn ñaanu yàlla dee. Mm. loolu fi dem zahir mi la. xaalu inna lillahi mm. wa inna ilayhi raji'un. fi dem la. ñun loolu xaaruñu ko. Mm-hmm. donc mënu ñàkk. rek dëgg. waaw depuis 2017 ba léegi maa ngi ci internet di wax. Mm-hmm. feebaruma. Mm-hmm. pàttewuma. lagewuma. chaque semaine ma wax. ñen ñi naan la da nga bëri wax. ñi naan la li nga wax xamoo ko. ñi naan la tëgal sa gémmiñ ci ñu naa la merci beaucoup li ngay wax rafet na ab diir deux mois ma dem ba yëg ne ma war naa sant yàlla sant gi muntu amee ci lenn lu dul ma tëju jaamu ko wallahi alazim ma tëju jaamu ko ci ñetti yëf di ko jaam jaam goo xam ne lépp cant cant dong ma ko waral bi si noppi gën a jege sama waajur wu góor ma yaakaaroon ne sama baa jox na ma lépp ndeke sama baay joxul moom dara dama béppee woon rek man na fa di tarare yi. wal kitaab fi jaar ci xam-xam lépp nga ne góor gi am na lu mu dese woon. ak li ma yëngal ci àdduna yëpp. sama baay nee na ma bu doon na alquran la ci masalantey. Mhm. bisimilah rahmaani rahiim dong laa la jox mu des nag alif lam mim sal kitab ba mu ngi diwaan ah, ma jege sama wajuru góor. Mhm. mu xamal ma sirru sirri. Mhm. alquran. xamal ma sirru sirri. ismu la laxasam mhm. yi nga xam ne yàlla rocc na barke bi barke bi mhm. nit mënut see jaamu yàlla ba la mhm. mel téléphone bu amul crédit ba nga jékki-jékki ku am na ismu yoo xam ne vidde na bokk na ci benn ismu laxasam bokk na ci ku jant bi tiim bi tiim bu un milliard personnes lañ ñaar ñett ñoo ko mën a nga fëgg buntu yàlla yàlla des ñëpp mëntuñ see jaamu yàlla ba yàlla nangu ko ama soxaleesu misaal bi yomb na ama soxaleesu jamono bii nga xam ne ay Sarr Ousmane Sonko ñu ngi am problème man bokk na groupe WhatsApp ñoo bokk mm-hmm. dañ ko joxe naan liggéey leen ko nangam mm-hmm. pour ñaan yàlla diw xalaku wala nangam mm-hmm. ba léegi ki nga koy liggéey pour mu xalaku muy gën di am jàmm di gën di déclarer projet kon nga xam ne ne kon am na lu ci laxasu ñun ñoo tooñ maanaam li tax yàlla rek si réew mooy ñun ñoo dem jaamu yàlla ci ismillah alazam yooyu. ba am fatu akbar ba dondu ci maqamay yàlla yi pays yi mag yi. Mhm. te yëguñu ko. jale bi ku mooy yàlla ci jigéen ju ñu xaraam. yàlla nag bokk na ci sabab yu waral. Mhm. mooy ba Jibril alayhi salaam mu ñëw. rocc ci barkeb Ahmadu Soxna si yóbbu ko. ku yóbbu nga ku yóbbu bàyyi ci gar Ahmadu Soxna si jalaal. nga xam ne fukki tëggil la ak juróom-ñett. Mhm. ma këru ko nag xaraf par xaraf. maanaam dégg nga ne. sama wujj wu góor. xamal ne ma ba xamal ne ma euh, boo demee ci Mourchid. Mhm. dafa lay bindal Ismaïla Ismaïla Sami. xam ne 99 non la. Mhm. nee na ma xaddu Mouhamad bi mooy liwu Mouhamad liwu Mouhamad bi. 92 yi. Mhm. daanaka moom it mbind maa nga fa yax baa nga fa. waaye yàlla ak bëgg bëgg yonent bi. rocc na ko yóbbu hadratu ilaahiya teg ko fa. ndax ñun ñim bàyyee istimulaa lazam yi li istimulaa lazam laaj ci set ci sell ñu nekk ci ñun nga gis jul ba jaamu yàlla gën la miti si istimulaa lazam lay laay fen nitu yàlla sëriñ buy ootee ne man sëriñ laa gën la miti si istimulaa lazam yi dàq laay njaaloo ci jigéen ju ko nga gis ku dàq si istimulaa lazam gën laay kiñaan lu mu gis lu yàlla dogal rek mënu pourquoi pas muy am ne fi jógee loolu mënul am nit di sigar istimulaa lazam te benn reflet bu muy def ci yow kon ñan xam ne mbir mi nekkatu fi jóge na fi mu mel ni alxuraan rek ñaata nit ñooy xëy di gën ci alxuraan fekkee nañu fen ñaata nit ñooy xëy di def lu xaraam ci alxuraan te te dina rëbb kon nga yëg ne nga jël xaatim di si njabar nit ngir ngir mu nopp mu def xaptal mbir mu mën a doon lu bokkut ak lu alxuraan ak sunna digle kon yow bokkut alxuraan alxuraan mu ngi lay rëbb waaye kuy bind alxuraan mu di la rëbb wala nga di ko jàng wala mu di la rëbb est-ce na ne ci yaw yow yow nga jàng alxuraan déedéet buñ passé ci loolu alaaji dégg nit ñi faw ñu jaamu ji yàlla gis nga iñaan gu ñaaw gi ci dëkk bi gaaw a dee gi yàqante der gi xaayoon si tur gi yëpp dara war lu ko lurut bëri bàkkaar ñàkk tub dellu ci yàlla yëg nga ne ñaari weer ak lu tegu bi ma delloo ci sama waajur góor toog ak moom ñu waxtaan mu ne ma kat bu ma sañoon fii ak ñaari weer ak fukki fan doo dem Facebook Instagram YouTube mu bëgg too jaamu yàlla bokk na ci la ma njëkk sant mooy waxtu julli juróom bu ma julli fi ma toog bala maa jóg ma sigar fukki junni astafirullah ak kon sama baay xam na ma ci yëg nga ne ñaari ak fukki fan ba bu si yàlla sàkk ma liggéey mille huit cent cinquante danna sa sun danna sa sun deel nuun taat tànk ba tooy sun danna sa sun nga di ko liggéey ñaari weer yu tegu ci fukki fan. ngir lan jox ko yént bi addiya ngir làqu ci moom. boobu jamono nag ku xamu ci li nga nekk day jàpp ne yow yaa ngi ci jafe-jafe waaye ndeke kerek la sànc yi gën a dox. kerek la oto yu bees yi gën a baax. Mm-hmm. kerek lañ gën a mën a sol jasneer yu baax. Mm-hmm. kerek lañ gën a belli. kerek lañ di gën a nangu tamit. kerek lañ ñaan parce que yàlla ku lu mëntu diis soxla pour nga faj ko. Mm-hmm. bunt bi kenn la mooy yéen a ma bu fekkee ne yow bëriwul loo jul bi mm-hmm. mënoo am maqaama am dayoo mm-hmm. ba am loo wax yàlla jot ci mm-hmm. ndax yént bi muy bunt yàlla kon il faut ñu dellu ci yàlla dégg naa wax ci bari nag dégg naa ñu ne Moustapha Dara dem na kaso nit ñi dañoo yàkkamti rek nañu bàyyi yàkkamti gi nañu teey bu yàlla bindee sama jëb yi kaso mënu maay fexe ba duma ci dem ndax man kat gars yi dañuy nettali benn xissa benn waaye bu ñëwoon ci sama su borom daal gi ne ko ñaanal ma damaa def tooxi doona ñu bëgg ma tëj kaso te bëgguma dem kaso ndax dama bari noonu sama sor na ko sëñ bi te nga dem kaso mën ko déedéet ñaanal ma rek insisté sama su dégg naa borom ko yàlla bi mu génnee pour pour ñibbi jël oto oto bi am accident mu ñàkk bakkanam ci yoon bi kooku demoon kaso moo gënoon mu dem fanaani barsàq bu ragal see noonu am lu leen neex ba nga ragal dem kaso. kaso pour ñun la. te man dama sant yàlla ci engin militaire la engin militaire militaire dangay ñeme kaso. da nga war a ñeme kaso. kaso pour góor la. maa ngi sant yàlla nag. ci jamono bi nit ñi yaakaar ne maa nga fa. man maa ngi sant yàlla di gën di belli. Hmm. Ah? naa ci sa ay boyu sëriñ. yoo xam ne ay xale lañu. Hmm. sax di ma gaaral di ma gaaruwaale. Eh? waaye xam nga. alaaji dégg képp koo xam ne sa xawra dafa génn ci internet juróom-ñaari jaame yàlla yu bokk teg ci bët yow sa ndigg li mënatoo sa jur waliyu yow en personne mënatooy am cër ci yàlla dama ne képp ku sa xawra nekk ci internet juróom-ñaari nit teg ci bët waaw yow mënatooy am cër ci yàlla sa ndigg li mënatoo sa jur nit ku baax nit ñaa ngi fay lu garaaw muy internet. koo gis ndaysaan yaakaar ne pour mu am bës rek fow mu am lu sexe lu muy jëfandikoo pour pour nit ñi xam ko. subhanallah yéen a jàmm ci loolu. te nit ñi te ci bàyyi xel. di wax sëriñ ci ndaw ci ma doon gaaral na leen. Mhm. nañu yem. dama jóge ci ak jaamu yàlla. bëgguma ko moo ci guerre. Mhm. te li ma téye ci arme. pour guerre dafa bari. arme bu demee nan mais leeral ñu yan arme. xam nga bu fekkee ne man gis naa sëriñ boo xam ne gis nga bi ñu defee émission sama kër ma ak yow. ma ne la sëriñ si nañ di bàyyi xel bu ñu seetee jigéen ñi gel yi. Mhm. parce que da ngay seeti jigéen. Mhm. ñaaw la moom ba noppi jóg di sangu ji mu falaas la. Mhm. ana benn sëriñ boo xam ne ba nga jógee dafa daw dem ci benn gel ne ko yow yow yaa waay Moussa Dramé sa sa sama vidéo yow la <laughs> gel ba ne ko man Dramé gisuma ko dégguma ko. jaale bi ko moom moomu ëmbal na benn xale ëmbal na jigéen juy sey ñaari yoon yàqaloo ko biir bi li wax ni preuve à l'appui yooyu yëpp nag buñ ko yàlla defee ñu xam ko ñun teg suñu gémmiñ yi am ci ay preuve parpable bu ñu toogee ci mbir noppi jàpp ci njàmbur si ñun boo ñu waatee ci guerre barki alxuraanu karim doo bàyyi di nga dugg ci biir suuf te loolu yàlla boobaat yàlla xamul benn solution boobaat lu rut dugal biir suuf si. Euh, sëñ Moussa Dramé yàlla kese bëgg naa ñu ñëw ci istixaara istixaara nekk na loo xamante ni jàpp naa ne moo gën ci ab jullit nga ciy def nag liggéey boo xamante ni tey xam naa kilifa yoo xamante ni ginnaaw yàlla bu ñu bëggee lu leen leer ci seen dund sa jëmm ji lañuy ñuy jëflanteel istixaara laa bëgg tey nga andi ciy leeral. xam nga gis nga moo wax la benn affaire bu la yàlla mayee nga bëri kilifa yoo xam yu am personnalité. yoo xam ne ku ne ngéej ñu gis leen nga am ñoom relation sax internet foo mënut yaay foo mënut jaay parce que ñoom ñu leen ñaan la en tant que wóolal gi ñu yàlla bu ñu sañoon mbiru internet nga takk ci suuf maanaam man dama jàpp nit ku am personnalité ku am personnalité du génne internet man nu laa bu fekkee da nga yor mu wëtt wóor man jàpp naa ne wax ci média ci internet war naa tuuti léegi nag bu fekkee da yàlla doole boole ay nit ñu mag ñu tedd ñu yàlla may tur ci Afrique waxuma Sénégal ci Afrique nga jëf daan teg ñoom du daan namu lu bari moo tax ma sant yàlla ci ñi mu yàlla bëreet listixaar li ma la waxoon at at laa lay wax nit mën a dugg ci dara te du set seet gis xamul gën a garaaw yëg nga ne fukki fan mois de mai ci diggante fukki fan le 10 le 11 mhm. le 12 le 13 le 14 ba le 15 mhm. nga ne juróomi fan yi moo tolloo nag juddug yéen ju juddug yéen ci yàlla moom sallallahu alayhi wasallam mhm. ne juróomi fan yi jëm ci kanam mooy diggante le 10 mai ba le 16 mai sekk nañ ci boo xam ne nii bu fekkee ndox laal na ki suuf ci juróomi fan yi ndox moomu ku ci ku ci ku ci am. Mm-hmm. def ko ci bidon. Mm-hmm. di nga sangoo pendant trois cent soixante cinq jours. waaw. waatal naa la ko ci yàlla ne la. Mm-hmm. tooke bu mu nekk ci yaram dana wàcc. ndax ci la juróomi fan yooyu noonu. ci liy teew sax sam juddu te li ci laxasu ci mbir ci sirru sirri yi. dafa rëy du du li mën a wax. léegi nag nga ñëw ci wàllu list listixaara. li ma yàgg wax laa lay wax. sa tur la ñuy jël. sa turu baay. sa turu yaay mhm. ñaata at nga xam mhm. bis bi nga judd bis bi doomu aadama judd c'est très c'est très important li si mhm. te wëral ma ndax ñi ngay tourné gis nga ku mos a wax loolu bisu anniversaire anniversaire nga xam ne bu dellu see ñëppee kontaan bis boobu nga xam ne moo la ñu màggal guddi gàmmo bis boobu bis bu nit ki judd faw day bokk ci listixaar bi bu ci bokkut nit ki mënu ko xamal dara loo ko wax da ngay bokk gi bokk ci nit ci doomu aadama moo waral année bi nga judd bu dellusee nga fete ko pour sant yàlla ci année bi moo tax listixaar gu wét gu wóor gu sell laa wax nag dëppoo alquran ak sunna moom ku ma fi romb doo xam nit nag mën naa wax listixaar bu ñàng damay ram damay nangam boo jël nangam day soob rek gis nga li fi jant yu bàyyi ak ci mag baax ñii képp ku ko fi xeeb. foo dem di nga départ li sunu wéy naa wii jaari ndaare. da nga dellusiwaat ci ndaare. sëñ Moustapha Dramé yàllay kese ñu gis ne tamit wàllum càngat am nga ci jagle wàllu càngat dafa am loola ci yàlla suñu borom may nit ñi bëgg nañ di càngatu waaye bëgg nañ di yëkkatiku càngatu alal tey bëgg naa ñu ñëw ci. samay wey gisoo ko samay wey. waaw gisoo ni mu ñuulee. mais lan moo ko ñuulal. saafara ji la gisoo ni a ñuulee nii. ah sëñ Moustapha day sangu. man. Hmm. la am xel ba ngeen waxoon ne moom du muus. man du muus. réew mii. ñëpp siñ see ñu bañ. ne fan nga di la xaar. pour nga daanu. nga bañ a daanu. ah saa waay bàyyi si bopp da ngay saaxaan si bopp. léegi ci biir loolu nag. dafa am beneen saar gis nga Isaa Waqaati. dafa bokk ci sirru yoo xam ne. jamono ji nit ñaa ngi ko jëfandikoo te duñ ci am preuve résultat bu baax. mais moo waral loolu secret yi gars yi jëfandikoo te duñ ci am preuve. ba dafa bokk ci isa waqaati. Mm-hmm. si room. barkeb cangatam maanaam fatu gi ci ni mën a am ci cangat. Mm-hmm. dafa dafa dañ dafa dafa primé. Oh. xam nga isa waqaati. waaw 16641 araf. Mm-hmm. yow multiplié juróom-ñaari yoon. muy muy mu tolloog safa su mu tolloog sa muy tolloog safta wix. moom mooy xarafi isa waxaat yi dama ne la seize mille six cent maanaam cent vingt neuf boo ko xaddadee cent vingt neuf fois moo lay jox seize mille six cent quarante et un boobu nga darba ko moom it juróom ñaar yoon moo la jox saftu wix saftu wix nag boo ko xarafee li la jox ci chiffre boo xarafee isa waxaat yi même chiffre bi la tolloon léegi nag cangat gi tuxu na isa waxaat man maa la li ma la wax nii. léegi càngar gi ne. laajal moodu moodu yi nekk Europe. wala ñu nekk Sénégal. ñaata yoon lañ bind 313 waqan sangoo ko. mënuñu am preuve. ba bis muy gën a jafe. waqan. maa lancé ñëpp def fi. waxuma nag sëriñ ci ndax daanu. waaye dama ne laajal client yi. kan lañ ci jox 313 waqan. mu sangoo ko xaw jëm faju amatul. amatul de. amatul. léegi nag. ma jox la ci cangat ma wax la ma wax la ban cangat moo xew. ban sootu bàqara. mooy saar bi gën a gudd ci alxuraan. mooy saar bi gën a gudd ci alxuraan. Mhm. yàlla tuddee ko bàqara. Mhm. jël Faatiha teg ca kaw. Mhm. jooju bàqara teg ci. xam ne ci isib juróomi isib la. ma ne la sootu bàqara. mooy cangat goo xam ne. kooku jëfandikoo doo dem kaso. mu cangat mooy cangat goo xam ne jigéen buñ ko bindal benn yoon ci sa dund nga sangoo ko bis boo amee doom hôpital ñu opéré la xaj boo seen ma ko xam nga bokk na ci bis ni gi li ma gëm mooy nga dem hôpital ñu lay war a matu ñu opéré la loolu gëwuma ko bis ni gi tey loolu xamatu ci réew mi kuñ ko def yaa tey nit tubaab yi dafa lefee ci seen wàllu technologie xam ne nii ku ne mën a fa am doom te duñ la opéré te doon xam nga xam benn affaire mm-hmm. états-unis jigéen bu fa ëmb mën nga ëmb am doom daanaka ñaari yoon lay jox comprimé pour nga naan la des yëpp amul comprimé mais lu tax ñu mbir réew mi daal ñun jigéen bu ëmb di nga naan téeméeri doom ba noppi am doom hôpital ñu xar la pour nga amaat doom day nekk problème bis ni ngi tey am doom hôpital ñu opéré la lu doom mu fi te loolu nag ñu ngi ko jëlee fenn ful ci sotu bàqara xamul benn nag buy am doom ñu opéré ko gisaguma ko kon bàqara siro baa nga fa incha allah dégg bàqara laa na le bu ñu ko bindee bàqara sotu bàqara boo koy bindee danga ko jox xale bu majeur mm-hmm. maanaam xale boo xam ne dafay doog a mm-hmm. ba noppi kër alxuraan mm-hmm. nga jox ko bindale ko ma wax la la muy àndal nga sangoo ko yëg nga ne bindal naa ko nit ku nekk euh, Sweden Sweden nañ ko Sweden Sweden nit koo xam ne dañ ko ci affaire drogue ma bindal ko ko boo joxee maa ngi ci digg jaamu yàlla mu mu bi ñu génn bindal ko ko yónnee ko jox ko waa këram ne leen togg leen ko ci mbaxal yónnee ko ko mu lekk ko. billaahi du fa demee kër. mais surtout Bakar ndax dana dox ci wërsëg tamit. cangal la ci ñaan la dox. lépp loo xam ne. xam nga dafa am xaatim. boo ñëwee ci rabbana rabbana yi ñekk ci surtout Bakar yëpp. dafa am xaatim musalas gu ñu koy daggee. xaatim musalas googu nag. dafay war a nekk ay kër parce que dafa war a nekk juróom-benn kër wala juróom-ñetti kër sans départ ci yow ci ni nga ko a xamee. am na kër goo xam ne ca nga koy bàyyi yii ci ñaan yàlla. Mhm. baameel ak kaso. na yàlla maa ngi lay ñaan diiru nangami at yi ñaari mu ci du bu mu ci dem benn otu bàqara otu bàqara xam nga benn affaire am ba na sëriñ ci ko maklu fii de xii eh. eh, otu xam nga am nañu ba na sëriñ ci ko maklu bàqara dafa gudd juróomi sib la te mokkal nag hmm. waaye ñu bëri ñu ko mokkalu nag si Moussa Dramé yàlla kese tey bala maa dugg ak yow ci benn expérience bi nga xamante ni mi ngi dox damay lay laaj papier eh, ñi ko bëgg te ne ci réew mi waaye ñi ko bëgg te nekk bitim réew man dama naan est-ce que nekkul ne secret papier dafa toxu parce que ñu bëri ngi ñaan lu te ñaan li nangul mais dégg naa yow yaa ngi ciy am ay résultat yu am solo. xam nga alaaji dégg man doomu aadama laa mm-hmm. du ma ambassadeur du ma du ma président benn réew ba may visa. wala bi di joxe ay nationalité. yàlla jaam ñëpp moo leen bind. bëgg leen. ñu nekk si xajante bi. te xalaa kulli xaalin dina am ñu yàlla du ko safara. kon moom Moustapha Dramé si may ñaan dina am ñoo xam ne xalaa kulli xaalin dana ñaan yàlla duñ duñ gis preuve bi. ci sirru laa la wax nag. li mu mën a yàlla. ak quatre-vingt-dix pour cent yàlla may ma ko. mooy gis nga qad sami allahu qawla. dafa nekk saar boo xam ne nit ñi buñ xamoon li ci nekk ci njëriñ. Mhm. ni ku bëgg a tukki. Mhm. wala kayit boo mën di toppatoo pour ñaan yàlla jot ci nu mu gën a gaawee. Mhm. su ma maanaam xatamaar laa gis gisuma gisaguma sirru bu ko ci ëpp. dama la bëgg wax ne la moom rek mooy mooy saar woo xam ne. lépp lu nit bëgg a am preuve. bu gaaw boo ko bàyyee man xoolaat naa alquran. baqara ba naas sirru yi gisuma ko ci yëg nga ne boo gis nga tan tey boo bindoon tey xat samia ba mu jeex nga ut juróom-ñaari dunqitan yu bokkul mooy juróom-ñaari dunqitan yu bokkut yu bokkul nga jël xat samia gi bind ko ba mu nga def ko ci un litre ndoxu kiran ut un litre ndoxu géej mm-hmm. xoj ba mu yàbbi nga teg ko tekkee ne le mm-hmm. nga jël juróom-ñaari karawi tan yi juróom-ñaar dunqi tan yi bàyyi ko ci biir nga wut cuuraay liban sotti ko ci beneen bi muy àndal falaa koy tëjee du ma ko tudd ndax ñu amul xam-xam tamit dafa bari nit mënu koo sangoo janoo nit ko amul roxu wax ko dara mu ko lu mënul ne maanaam boo ko sangoowee wax nit da koy def loolu dafa ma rëcc waruma ko wax sama baay bu ma ko wax eh, dégg li ma xam bari mhm. li ma xam ci siru fi ma tëdd waxee yëng nga ne. waaw xaj fi nekk di yëngal yëpp. Mhm. nee naa la sama baay bi Souleymane Rémy képp la ma joxoon. te gisagu ma nit ku yàlla bind ngay wax ci média. ku ma ëppoon tur amut. Mhm. yëng nga ne Baye jox na ma. Mhm. fukki ci bi juróomi. waaw kon ma jàppale yëngatuma laa ji jox naa la rendez-vous laa si naa ñëpp defi. ki may njëkk song ci mbiru xeexu internet. barki alquranul karim. bu bu dundee juróom-ñaari fan. ñëwatal fii xooy ma xaj bi me kon déclaré la guerre wala gaaral la wóorul. non gis nga réew moo tax boo xam ne. Mhm. ñuus rek ku la tooñ ñuusal. ak Macky Sall sax li muy def. Mhm. léegi gars yi gis nga ko ku jël gerte ñu jël télévision ku bind lu lu baaxoon ñu jël télévision baati ngeen noonu la war a mel. jéggi léegi ak léegi doy na. yaa ngi ne saa xuraan mhm. yàlla dañu digal nañu am na ñenn ci seen doom. ak seen soxna ñoo xam ne dañuy nekk seen noonu. waaye bu buñ ko nekkee nag. na ngeen leen da ngay jëlale na ngeen jëlale tey jéggale waaye man lépp naa yàlla jéggale gi ak jëlale gi defante ba ca kanam lu mu jóge bay ngar ko. nee na dafay eh, defante eh, kon yaakaar naa nekk na mbir moo xamante ni yéen a koo déggandoo sëñ bi Hizbut-Llahi bi nga xamante ni jamono jii sëñ Moussa téye na ko di ko liggéey ba aajo bu toq ci noppam rek mu faj ko ban Hizbut-Llahi la. laaju dëgg dama lay leeralal ah ah mu habba ah ah mu sadaqata lii juróom-ñaari xaraf la yoo xam ne xam nga juróom-ñaari xaraf la yoo xam ne nit kuy def boo julee fajar ñaar ak fajar fi nga toog bala ngaa jóg nga ci ko ah ah mu sadaqata la wax nii nag am na ñoo xam ne ba ñu juddoo seen ba léegi ci la nga doog a dégg boo koy tudd mooy ah ah, ah, ah, ah mu sadaqata loolu boo koy tudd ay xaraf ci abajada la yëg nga ne moom mooy ismu ñaanal boo xam ne juróom-ñaari xaraf la te duñ ko bind ci ndox ku ko ci gar képp koo xam ne nii bëgg ngaa xam xutbu zamaan kan mooy xutbu zamaan dégg ko liggéey moom mu ne xutbu zamaan ak mu naqadi ko yëpp di nga xam kan mooy xutbu zamaan kër nekk ñu ngi woo seen xalifa ba xutbu waaye yàlla xam na ne bëri na ku ñëw xutbu fekk te ku enregistré wuñ sax li maanaam liste muslim yi jullit ñi mhm. turam enregistré wuñ ko ca xam nga da ngeen sigar ku naan la allahu mama jibril mm-hmm. mooy yaa mujj la ma li am na ñoo xam ne dañuy dañuy xasaf yaa gi mm-hmm. ne amu amu la ma li mooy allahu muhammad jibril mm-hmm. léegi nag am nañu naan ko yaa am mujj la ma li waaye yaa mu yaa gi yow moo daaw la ci naaw mooy hee yow yow yow yow yàlla ak muhammad jibril xam nga bu loolu boo ko xaddadee 403 la lay jox sama baay nee na ma lim bi 403 la mais da ko liggéey 404 benn bi def ko xaddi yaay xaddi yaay bu sama borom jamaano ndax yàlla wane la ak moom ci ci ci ci palaas bu neex mhm. ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey imagine nga toog rek naan ala moom jibril ala moom ala moom jibril mhm. bu yàggee jibril ñëw jibril nag ak na muy ñëwee mhm. lu nga wax loo xam ne nag benn waaye bu téléphone amul réseau du ko mën a dégg da koy inkaar waaye ku ko inkaar te boo deyee sa affaire la dama la nga liggéey ko ba xam kat mooy Abdou Samane nga xam lab daal yi ko wër juróom-ñaar lañ nga xam nu ju baaw yi xam nu ko baaw yi si <laughs> Moussa gi secret bu doy waar yaa ngi dimension bu garaaw nekk ci dimension bu yéeme mais sëñ bi ñaari procès yi jegante wante ne Sonko Mame Mbaye Niang Sonko Adji Sarr jàppoon Sonko am na lu ñu ko sëf ak coow li fi tàbbi ci diggante imam ba ak yooyu tamit mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr mm-hmm. mbirum politique mm-hmm. lépp lu mu ci doon wax naa ko bu noppi ak yéeg daaj mm-hmm. déggoo ma de mbokk yi. ñi ma daan seetaan at yi passé yëpp xam nañu ne lu ne wax naa ko Adji Sarr. bu mu ci def. wax naa ne mbirum Ousmane Sonko nangam na maanaam dafa dem ci man. man wax naa ko. waaw dëgg naa fi émission. ba ma defoon naan la. kii di capitaine Touré. waaw capitaine Touré Imam Ndaw. waaw kii di Ousmane Sonko. ak Khalifa Sall. na Macky Sall bàyyi xel ñoom. wax naa ko fi de. ba ma waxee loolu teg naa ci ne xëy na ne ko nii bàyyi xel. waxoon naa ko de. ci lu wér émission yaa ngi fi. Mhm. yëpp nag maa damay xaar danaa ko vaar te bis day jot li ma wax am ma vaar ko. Mhm. moo tax fi ne. waaw dama bëgg a bàyyi mbirum politique. Mhm. du ma ci waxati. parce que Ousmane Sonko. dafa am sumay xarit. yu baax. ba ci suma rakk ñoo bokkande ak bàyyi. billaahi wal kitaabi sama baay mooy sant du ma ko fenal dafa am sama benn rakk baay boo sama benn doomu baay maam ko xam ne sama doomu la sama baay moo ko jur sama benn baay la maa moo ñoo toog ca daara ja Kaolack sama baay toog mu toog sama yeneen rakk baay toog xam moo sama baay bu fekkee du bokk ci élection présidentielle yi ma yàlla man sa doom ma wutee ko bu ma fekkee oh. barki yéen sama baay toog nga yëg ne kon man sama rakk yu bokk ndey ak baay wala ñu bokk benn baay day jot tàkk ci Ousmane Sonko te man xamut ku yàlla bind ci kaw suuf ku ma gën a bëgg Sonko gëw ma ko gëw ma ne am na dama ne la man ku ma gën a bëgg Sonko amul mais gars yi farum tappale farum yëmbar mi ñu faree du ma ko faree man damay far sama diggante ak yàlla pas interpersonnel wala bëgg ay vie wala bëgg ay patriote yu ma si teen woo ma téléphone wala jox ma seen xarit ma ñaanal leen bu loolu nañ ko téye doy na. kon nga jàpp ne sëriñ su bëri dañu daw làqu. la Sénégal yi nañ nañ yeewu ñu bëri bëgguñu Sonko. bilaay gëmuñu ko dañ koy mbuboo pour ëllëg ñu am lañ ci doon. dañ koy mbuboo pour am ay vie dañ koy mbuboo pour ñu partager leen ñëpp xam leen mais boo demee seen bu mu xool seen bëgg ga intérêt la. man Moustapha Dramé xam nga émission bi bokk seetaan mhm. dama ne la yàlla bindu ci àdduna ku ma gën a bëgg Ousmane Sonko mhm. ak loo mës a dégg moo ko ci moom mhm. dama ko bëgg mais xam lu gën a dee du ma wax mu teg sama bakkan bi ak lu ko bëgg bëgg bëgg bëgg affaire ñu du politique am dafa lëndëm ci man kurus maa ko te gëw ma nag ne ku bi tiim di mu laa si defi wax ci teel nag kon nag man sañatuma wax dara ci politique li ma mën daal mooy lépp lu jëm ci mbiru politique nañ ma ko jégal te jëlale ma ci ba jëmmi jamono. li ma si waxoon ñëpp histoire dañuy jugé. ñu teg ko war ko bi sëf mooy. ala dëgg. gis naa nit ñi jamono jii ñu jël ay vidéo la motif. ñu jël Marème Faye Sall. an vidéo la motif. pourtant. kum ci doon sa ndey. kum Marème Faye Sall doon sa ndey. ñoo ne la kii mooy sa yaay moo nekk vidéo la motif. boo ko yëgee. ñu envoyé ko kala ko envoyé di nga ko saaga ndey te boo gis ci internet doo ko xool ndax ma sa ndey lan moo tax léegi ñun politique kenn ku nekk yéene sa moroom dee la ñuy àdduna moo ko fi jar te lépp bëgg-bëgg àdduna la Maram Faye yaayu jàmbur la bu politique dàqee jullit la ñun ay jullit lañu xam na loo xam ne ku ko dégg ci sa mbokkum jullit wallaahi feeg jullit li woo te jéggale sa jullit des na waaye léegi da ngay far parti Pastef ma far benn bokk yaakaar nga yéene ma suba suba suba ma dee est-ce que ñun ay jullit lañu te politique bi yëpp mbiru bakkan la mm-hmm. xoolal mbiru imam boobu imam boobu noonu doon doon jiite juma nga Mosquée bu Dakar mm-hmm. imam bi mm-hmm. Sénégal lañ bàyyi jékki-jékki di commenter ci mbir te seetaanu vidéo bi ba mu jeex imam bi dafa toog di xutba ci nga xamee Sénégal yu sérieux nag ñu bari si ñoom rëy nañoo jum jéglu naa jéggalu ab julit mooy maqaam bi gën a kawe dama ne la dama ne la imaam bi ba na ne jumaa ji ne yéen yéen gouvernement bi laa wax mhm. joxe ngeen tuyaawan waaye du tey fii da ngeen joxe sama jumaa ji ku jëlee nga joxe mille franc gaa dégg wax jooju mhm. pour politiquer ko oh, te pourtant booba am na ñiy jaay brassard. mille francs mhm. loolu ñu daganal ko. bëgg xaraamal imam. Mhm. mu taxaw ci minbar laaj mille francs pour yi mu doolelee beneen juma pour mu taxaw dem gën a yaatu. léegi mbir yëpp nag loo koy xeex mooy intérêt personnel la. Mhm. bakkan la. waaye kenn ci waxu dëgg te yàlla tax. ñu bëri biñ commenté ci mbiru imam bi. dem ba mu leer ne imam bi kat jumaa Tiwaawan moo tax mu doon mu laaj ndimbal. kenn si ñoom ginnaatul dafay di woo jégalu. te jum. ba kañ. ba kañ. gisee mbirum Gaston meng sëriñ si mu xam nga sëriñ si dafa ci bari xam nga boo seetloo. lépp gis naa man maa fi daan def ngëb liste. ne damay lim ñi nga xam ne dañoo war a dee ci at mi. loolu ma ne ko ñàkk xamee ci àdduna. gis naa léegi sax am na ñu koy copier ci man. Ah waaw loolu sant yàlla yu wane ne la. ndeke man am na ñoo xam ne man maay seen fan maay seen maay seen wala sekk daal maay seen nutri yi seen kii daal beneen bi sëpp mooy maay seen idol beneen bi sëpp mooy laaj dégg mhm. Gaston Mbengue feebar mhm. ñëpp yëg ne feebar na bokk bokk naa si ñu ko na mhm. dem France faju ji ngeen dégg ne AVC est-ce que ñuy wax loolu am na kenn ku bëgg ñu ne sa bàyyi dana dee. da ngeen bàyyi Gaston. Gaston bàyyi jàmbur la. kañ lay dund kañ lay dee. sama tool la rek moo ko xam. te kat ku lu mën naa lee faanin. loolu sax moo gën a garaaw ku lu sax te mawti. nañu ragal yàlla ci li ñuy wax. bu ñu bëgg rek ne naa wax li dara mu am ëllëg ma dagg ko teg ko pour di ñuy may borom baatin gis nga baatin. ku ko xam guddi lay leer sa diggante ak yàlla. nga sax dàkk ci jaamu ko kennal ko bañ a boole caaxaan caaxaan baaxul de ni maa la ko wax. bàyyi la nga tàggatoo ak askan wi lay suivre ci MPROD TV. di gërëm sama baay. sama baay di ko gërëm. gërëm sama baay. su mooyee man. keneen koo dëkk micro muy génn MPROD. bàyyi jàmbur leen damoon na mel moo ko def. ma man sama baay moo ma def ni ma mel. sama baay. moom ma def ma mel ni ma mel. sama baay moom ma man santuma kenn sama baay laa sant. te yëngu benn affaire nit ñi dañoo war a toll si jamono boo xam ne dañoo war a dem gëm seen baay. baay baay ñëpp. wa qaddaa rabbuka alaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanan waaye sëñ loolu jeexal na wax yàlla waxul sëriñu kat nit ñi ñoo war a dem bëgg topp seen baay gëm seen baay yaakaar seen baay man Moustapha Dramé la man maa ngi gërëm sama baay laaj dégg wallaahi wallahi képp koo xam ni demoo jàngi sa baay jàngalu hul la ëllëg sa doom dana la dana la mere man de wax dëgg yàlla ba màgg gërëm naa sama baay maa ngi gërëm sama baay de ba mu fexee ba not sama bakkan bi ba defa may jaamukatu yàlla gis nga laa ngi dégg bu ma jëloon sàngara fii naan di kayang kayang uhuh. war naa ko ci alquraanu karim bëgg jotee uhuh. képp mënuma ci yàlla loolu nag soo bàyyi ko def ci man kon maa ngi koy sant di ko gërëm ba ma xamee ne ismu laahi laazam yi nëbbu ak yi feeñ ba ma xamalee ne alxuraan cangat saar yi nga xam ne boo ci nekkee di jàng di nga am tuyaaba waaye ci jëfi doomu aadama yu bon yu bari tax na lu bare bari bari ci alxuraan barke ba rocceku na maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ñaan ñëpp jàmm ay ci mbokk yi dégg ngeen waxtaan mu am solo wi sëñ Moustapha Dramé yàlla kese waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ la nekk waxtaan woo xamante ni ngëneel la muy borom xam-xam di ku yàlla may ci wàllum ñaan yàlla mais gis euh, leeral yu am solo yi nga xamante ni leeral na ko ci gëj génn bi mu gëj a génn ñaari weer tëju woon na am lu mu doon euh, liggéey am ci lu mu nekkoon donte am na wax ju nekk joo xamante ni dégg na ko ci waaye gis ngeen leeral yu am solo yi mu ci leeral sëñ Moustapha Dramé yàlla kese mbokk yi doon topp dañu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen wëri jàmm ci darajay Muhammad Rasulullah